Euh, tey ñu nekk ci site boo xam ne comme ni mu ko waxee vingt trois hectares la mu nekk site boo xam ne mën nañ ci xayma génne ci quatre cent quarante cinq villa comme ni ma ko waxee nag njëg li dafay aju ci degré bi nga xam ne moom nañu bëgg a fexe ba site bi ci wàllu viabilisation ak ci wàllu defar ko ba mu méngoog ak nekkin bi nga xam ne moom nañuy mébét ndax dañ yaakaar ne Touba ak ni mu toll en tant que capital religieuse tey jii war nañ fi mën a defar ay cité moderne mais yoo xam ne dafay méngóog ak jamono mais également surtout te du yàq dara ci caractère religieux bi nga xam ne eh, Touba am na ko yaakaar naa ne boo leen gisee plan bi ak équipement yi nga xam ne prévoir nañ ko kër gan yi sëriñ bi wax na ko grande mosquée bi ak daara yi di nga xam ne lépp loo xam ne xalaat nañ ko fi rek dafa nekk dëppook ak ruuxu barab bi je pense que lu ñuy sédd la ci barab bi mais du tee nag mu moderne mais du tee également sëriñ bi boo boo seetee kilifa yi diine yi nga xam ne dañ fi nekk ñoom ay citoyen moderne nañ bés bu nekk ma wax ko ne Sénégal kilifa diine ay citoyen moderne nañ état dig ngeen fañ yi yëpp jamono yii yëpp mi ngi wax ci wàllu loyer bi pour ñu wàññi ko mais dama jàpp ne wàññi loyer mi ngi commencé ci jàppale askan bi ñu mën a am dëkkuwaay donc sëriñ bi nag ci cadre habitat social yaakaar naa ne ci directive yi nga xam ne sëriñ bi jox nañu ko mu jëlee ko ci ay kilifaam mooy ñu fexe ba njëg li mën a nekk njëg boo xam ne askan bi ak taalibe yi dinañ ko mën a àttan loolu dinañ ci fexe ba loolu mu mën a nekk ndax habitat social mooy li nga xam ne mooy yërmande te yëg nañ ne taalibe yi ak askan bi soxla nañ am dëkkuwaayu Touba bu baax a baax ndax Touba dafa nekk ci ruuxu Sénégal actuellement ñëpp a koy yëg ñëpp a koy dund.